bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaa audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi rahmani irrahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki àddina bi mbokki seetaan Oustaz TV dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci seen émission bii di aaxiru zaman seen émission aaxiru zaman ki leen ko may Café Touba Madiane yàllahu bil Mustafa café Touba Madiyana café Touba Madiyana di kafe gu neex ñu liggéey ko ci liggéey bu sell ay doomu réew mi nag ñoo ko amal kafe gi nag ngeen mën ko am ba bitim réew ñu mën leen ko livrer ak mondial relais kafe Touba Madiyana machine expresso yu ñuy xelle kafe sunu capsule yi mën naa dem ci machine yi da ngay xelle rek naan sa kafe kon nag woote leen ci numéro bi 77 567 67 43 77 567 67 43 Café Touba Madiana ñoom nag dañuy jàppale daara yi ñu fas yéene nag lépp lu ñu am ci ay commande daañ ci génne dugal ko ci daara ji di daara alxaaji Abdul Aziz si Dabbaax ñuy liggéey daara ji mu nekk fii ci Tiwaawoon Pël kon nag yéen mbokk julliti fexe leen ngeen jënd kafe Touba Madiana di kafe gu neex ñu liggéey ko ci liggéey bu sel ay doomu réew mi nag ñoom ñoo ko amal bu dee yéen ñi nekk Europe mën nañ leen ko livrer ak mondial relais ak foo leen mën a nekk ci Europe ngeen ko man Café Touba Madiyana na ñëpp jàpp ci liggéey bi di ñaanal mboolem ñi seetaan fu mu mënti nekk ci biir réew mi ak ci biti réew jàmm yàlla yërmandeem sutura su ànd ak xéewal barkeeg teraanga gudd fan ak wér ak mujj gu rafet yàlla na nu ko borom bi subhanahu wa taala boole defal mbokk yi tey mooy doon sunu ñaareelu jataay ci thème bii nu yëkkati di ci waxtaan mooy njaaloo bonaayam bàkkaaram musiba yi ci nekk aji njaaloo ji jamono yi muy njaaloo du nekk ku gëm yàlla njaaloo bàkkaar la ci bàkkaar yu mag yi loolu moo tax téere bii ñu sukkandiku di def waxtaan borom téere bi mi ngi ko tuddee azawajir an iqtiraafil kabair ibnu xajar alhaytami taalif ko turu téere bi rek moo lay wan diisaayu tem bi azawajir an iqtiraafil kabair luy tiital nit ki xupp ko jàjji ko ba bàyyiloo ko njaaloo muy lim bàkkaar yu bari yu xaraam di jur du dumay sunu boroom ba yegg si ci bàkkaar bii di azzina muy njaaloo waxtaan wi weesu lañ leen déggoon ne li ci borom téere bi bind yëpp mënuñu ko waxtaane ci benn jataay ba tax na danañ ko def ñaari xaaj incha allah ñetteel bi bu fekkee dana ko laaj loolu ñi seetaan laa ci déglu sëñ Mor après gaa ñi commentaire bi yoon ñoom ñooy tànn ñu jàll ci beneen tem wala ñu yemale ko fii ci ñaareelu xaaj bi incha allah loolu dañ koy bàyyeeg ñi commentaire après ñooy joxe seen xalaat ci loolu incha allah li waraloon ñu tànn thème bi waxoon nañ ko ci jataay bu njëkk bi xew-xew bu am ay xale yu njël yóbbu leen ci benn bërëb am ku leen yor ci yorin woo xam ne wu ñaaw la ba yoon jàpp ko dal ci kawam ñu bari di coow yorin week xale yeeg ñàkk a toppatoo geeg lu ci aju ma ne leen am na ci lenn nat loo xam ne ci mbir mi mat naa duut baaraam mooy xale yooya tàbbi ci loxo ndaw soosa funu juddoo ci nunu juddoo ca na juddoo mën na am ku ne a ah, am na ci ñoo xam ne ci yoon lanu juddoo waaye dana am tamit ku ne am na ci ñoo xam ne juddoo wuñ ci yoon ma ne ñooñu nu mu toll moo tax ñuy def waxtaan ci biir waxtaan wi buñ ci tollee am na fu borom téere bi di waxee xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ni xeet wi du nu dañ di nekk ci jàmm feek njaaloo tasaaroowul ci seen biir benn benn xadis am beneen xadiis buy wax ne xeet wi duñu deñ di nekk ci jàmm feek doomu njaaloo tasaaroowul ci seen biir waaw bu demee ba doomu njaaloo yu bari rek baa ngi tàmbalee wàcc ci seen kaw loolu rasulullahi moo ko wax sallallahu alayhi mi nga xam ne nii du waxandu moo wax loolu kon njaaloo lu bon la njaaloo ba doom juddu ca tamit lu bon la di njaaloo bañ doom juddu ca lu bon la lépp bon keroog bi ñu mujj waxtaan ñu ngi yemoon ci ku faatu te tuuboo sa bakkaaru njaaloo te gëtënunu la cawuñu la bu dee dañ la war a caw bu dee kuñ war faat la faatunu ko ba mu dajee borom bi subhaanahu wa taala te tuubul bàkkaar boobu bi nga njaaloo dëkk bi nga nekk fu mel ne Sénégal nga ne ñu ne àttewuñu lislaam amoo fuñ la mën a cawee amoo fuñ la mën a géttinee bu dee ko amoon soxna nga njaaloo wala nga mos a am borom kër njaaloo mhm. ku mos am borom kër kër njaaloo bokkul ak ku mësta am borom kër njaaloo ku mës am soxna njaaloo tolloowul ak ku mësta am soxna njaaloo ku mës am soxna moom bu njaaloo ak ku mës a am borom kër bu njaaloo sariya bu leen jàppee da leen di lapide jambañ faatu la leen di def bokkul ak ki nga xam ne mosula am soxna mosula am borom kër kooku dañ koy caw téeméeri yar waxtaan wees waxoon naa leen ne leen bàkkaar bu waay di def sunu borom teg ci pen bu toll nii téeméeri yar ba faat nga xam ne bàkkaar boobu du lu ndaw de te woyofal nañ ko léegi ci société bi képp ku tuubul bàkkaar bi mu ne boo faatoo ay mbol weñ yu safara lañ lay duma foofu la ñu jeexale woon keroog ba wax li ci Zabuur wax ñi faatu seen pay yi niñ leen di jëlee takk leen ca safara di leen dóor mol day weñ bu nu yuuxoo malaaka yi gàdde safara ne leen yéen bi ngeen di njaaloo da ngeen béggoon di ree te yàlla di leen duma ngeen di jooy rusu leen woon yàlla waxtu yi ngeen di njaaloo allahu akbar rus yàlla xam nga ne ku rus yàlla wallahi du futteeku ci kanamu góor gu ko lewul ku rus yàlla du futtee ko ci kanamu jigéen ju ko lew bi nga àndeek sas ndaw ngeen dugg ci auberge bi fay ñu jox leen seen kele ngeen dox ba yegg ci seen chambre ubbi dugg delloo bunt ba tëj laa ilaha illa am na ko ngeen tëjandool ci biir néeg bi de fexe leen mu génn balaa ngeen a njaaloo kan allah laa ilaha illa allah allah subhaanahu wa taala hmm. sëñ bi yàlla dafa bokk ci turam yi raqib raqib lan mooy raqib mooy kii surveille di xool ñëpp allah nii ñu ma dëppee caméra bi nii bu fekkoon ne bi nga duggee ci biir néeg bi noonu lañ la dëppee caméra nga gis ko ndax da nga futteeku ne yaa ngi njaalo caméra bii nga gisul borom caméra bi nga xam ne moo sàkk ñi defar caméra subhaanahu wa taala mi ngi lay gis mhm. inna allaha kaana ala kulli shay'in shahida yàllaa ngi teewe lépp ñu ne la yow dangay ngay njaaloo nga ne waaw ñu ne yàlla lay seetaan allah mi ngi lay seetaan jamono yi ngay njaaloo buñ la waxoon sa sëriñ bi nga fonk mi ngi lay seetaan ndax da nga njaaloo waaye nga ñu ne la waxtu wi ngay njaaloo maara de taali sa sëriñ bi nga gën fonk ci murit gi mu ngi lay seetaan yow tiijaan nga ñu ne la waxtu wi ngay njaaloo sa sëriñ bi nga gën fonk ci tiijaan gi mi ngi lay seetaan et cetera et cetera ndax di nga njaaloo waaw léegi bu dee bu fekkee sa waajur lay seetaan ndax dinga nga njaaloo ah da ngaa am soxna ah léegi sa soxna nga làqatu ba dem di njaaloo ji léegi ñu ne la ñu ngi filmer benn video boo xam ne danañ ko envoyé sa soxna bi nga bi boo noppee ndax danga nga njaaloo tontu bi mooy déedéet doo njaaloo sax yoo min allah ay waaye am leen kersa seen digganteeg seen borom am neen kersa seen diggante ak seen borom tey danañ ñëw ci xadis yu bari yuy wax ci njaalo bokk na ci xadisu muslim ahmad nasaayi yenent bi ne salaatatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati wala yuzakkihim wala yanduru ilayhim wa lahum adaabun alimun cheykhun zaanin wa malikun kazaabun wa aa'ilun mustakbirun ñett ngi nii ñoo xam ne yàlla du leen xool yowmal xiyaam yowmal xiyaam du leen xool du leen se du leen sellal mhm. laa yukallimuhumullahu yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati keroog bis pénc wala yuzakkihim du leen sellal wala yanduru ilayhim du leen xool wala hum ñexal na leen adaabun bugal alimun bu metti ñu ne ko ñooñu ñu mu mu ne seyxun zanin mag muy njaaloo seyxun zanin mag muy njaaloo xale buy njaaloo ko bon waaye mag muy njaaloo ko gënatee bon sayx foofu dana firi mag mu magee dana firi ku sangewu masa am jëkkër wala nga masa am borom kër dañu tuddee la sayx wa malekun kazaabun ak buur buy fen président buy fen yàlla du ko xool yomal am du ko sell du wax ak moom ndax jéppi ko wa ailun ak ku ñàkk mu sakbirun di ngand ngandulu nekk pauvre ba noppi nekk ku ñàkk ba noppi foo toll di tiitaru di ngand ngandulu ku yàlla jéppee ngi noonu ku am tey ngand ngandulu sax yàlla bëgg ko rawatina nga ñàkk di ngand ngandulu tabaraan yi ni mu indee xadis bi mooy laa yanduru llahu yowma alqiyaamati ila cheikh zani wa ila al ajuzi zaniyati yàlla du xool yowmal xiyaam mag muy njaaloo wala màggat muy njaaloo mu jigéen cheikh zani mooy mag maanaam màggat mu góor aju ajuz zaniya mooy màggat mu jigéen ñoom ñaar ñëpp yàlla du leen xool yowmal xiyaam nasaayi ibnu ibnu xibbaan solo ci seen téere ya ne yenent bi dane arbaatun yubgiduhum allahu albayaacu alxallaafu walfaqiru almuxtaalu walcheykhu zaani wal imaamu ljaa'iru ba tey ñeent la tudd fii ne yàlla du leen yàlla da leen a ñu yàlla jéppee ngi ñu yàlla meree ngi nii ñu yàlla bañ a ngi nii kan albayyaahu jaaykat boo xam ne xal xallaafu giñaakon la di jaay ba noppi luñ wax nga ne billaahi nangam laa ko jënde ku yàlla bañ a ngi noonu ne lii lay jar rek buñ ne la ah waaye wàññil waay bu mënta ñàkk nga ne lii laa ko jëndee yam ca waaye lii laa koy jaayee rek fa doy waaye billaahi nangam laa ko jëndee jaaykat bu koy def bàyyi ko tuub ko gaaw xamal ne yàlla jéppi na jaaykat boobu wal faqiirul muxtaal ku ñàkk ba noppi di ngand ngandul wa seyxu daani mag muy njaaloo wal imaamul jaairu njiit lu jubadi ñuy ñëpp yàlla du leen xool yowmal xiyaam bazaar ci wéeruwaay bu rafet moom it mu indi xadis bi ci même nettali rek beneen xadis boo xam ne tabaraan yi moo ko nettali ci weeruwaay yoo xam ne weeruwaay boo xam ne ñi ci nekk ñëpp ñu wér lanu ñu wóor lanu ba mu des ibnu laiha mi nga xam ne xadisam su amee mutaabaa dafay dugg ci xadisu xasan mutaabaa ciy dugg day gudd ci musalawul xadis maxtar Sarr mu solo Mor Diallo solo ñu jële ci Modou Fata la ñuy tuddee mu taaba ci gàttal man mi solo am na keneen ku solo lu mel ne li ma solo jëlee ko ci kii akay loolu leneen la duñ ci xuus mu ne kooku di ibn ibnu laiha mi ngi ci biir càllala gi donte moom daif la waaye bu fekkee xadiis bi mu soloo ci ki mu ko soloo am na ñeneen ñu ko soloo ci moom xadiis ba day doon te noo te ñooña doon ñu wér doon ñu wóor xadisam day doon xasan lu rafet ba tey rek même xadis bi moo dikkaat la yanduru yàlla du xool ilal usaymiti zaani ci ku dem ba gàjjar mooy koo xam ne karaw gu ñuul gi kawar gu weex mi ngi ciy dugg kooku ay quarante temps yu teg la am koo xam ne kawar gu ñuul gi mi ngi tàmbalee am kawar gu weex kooku la ñuy tuddee usaymit nga xam ne demagul ba kawar gi yëpp sax weex waaye tàmbali naa am kawar gu weex <sighs> muy njaaloo <laughs> boroom kawar gu ñuul guy njaaloo bu demee ba kawar gi tàmbalee am luy weex waaye na tuub mm-hmm. ndax bee jaaw tontooru dee lañ koy tuddee tontooru dee xam nga tontoor de tontoor xam nga ko <laughs> booy dagaar yi <laughs> xam tontoor tontoor tontoor mooy garab buy bëgg a sax màngo lii njëkk a ñëw soog di doon lu toj doom bi tàmbalee génn loolu lañuy tuddee tontoor béjjaaw nag mooy tontooru dee képp ku gis béjjaaw ci sa bopp yëgal ne say at mu ngi dox utali faatu ku dem nag ba seetu gis sa kawar gu ñuul gi tàmbalee am karaw gu weex loo doon def ci lu bon war nga ko bax ki am kawar gu ñuul sax warul a njaaloo rawatina nag ku dem ba doon usaymit yenent bi nee na yàlla bañ na lool usaymit buy njaaloo mooy ku kawar gu ñuul gi tàmbali am kawar gu weex ba noppi muy njaalo nee na du dugg àjjana walla ku yàlla bañ a ngi noonu du ko xool mhm, du ko xool keneen ki mooy ku ñàkk ba noppi di ngand ngand xadis yooyu yëpp même wax ji rek mooy dellu siwaat ci biir wax ji da ngay dégg tout le temps yàlla du xool du wax ak ku jéppi la kan njaalookat bi waay waay wala taqrabu zina bu leen ko jege njaalo buleen ko jege subhaanallah ay waay lu yàlla ne bu leen ko jege waxul bu leen ko def wala taqrabu bu leen jege az-zina njaalo innahu njaaloo kaana nekk na faaxishatan di bàkkaar bu bon bu xasaw bu yées faaxisha mooy lu bon loo xam ne boo koy def sax doo bëgg ku la gis mooy fahish fahish maanaam lu salte la njaaloo dafa salte sangoo téeméeri paanu ndox seetalu tilim tilimu njaaloo bi taq doomu aadama bëri na ko enteré ci hôpital bale nga dem di ko seeti ñuy defi analyse lu ne ñu koy def ñu gis lu ko dal fekk taq-taq njaaloo bu ko taq bu setagul moo ko dal sëriñ Pape Makhtar Kébé laa mos sa dégg mu nettali ko xafidahu llahu wa raa ndeysaan ca conférence sunu mbokk ma Cheikh Mujibu Kan yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko fa la waxee woon wax jooju mu ne am na bàkkaar yoo xam ne bula la lu mu fekkoon ci yow ci wërsëg balaa mu laa bàyyi dana ko ruusal ba mu jeex am na bàkkaar yoo xam ne bu la taqee lu mu fekkoon ci yow nga am ko ci alal bàkkaar ba taq ci yow dana ruusal alal ja dana ko seeyal dana ko yàq ba mu jeex am na bàkkaar yoo xam ne bu la taqee balaa mu laa bàyyi lu mu fekkoon ci yow ci wér gi yaram dana ko yóbbu ba mu jeex noonu la ko toppee noonu la ko toppee noonu la ko toppee te njaaloo gii ci bàkkaar yooyu la bokk ay bu la taqee ay bu la taqee hmm. bànneexu naa nga mi minit jaru ko toroxtaange gu tàmbalee fii ci àdduna keroog waxoon nañ la ko ñett yi nga xam ne fii ci àdduna la lay dal ak ñett yi nga xam ne yowmal xiyaam la lay dal te lépp ci njaaloo lay soqee ko bànneex booy am fii nii ci nangami minute jaru ko moo tax yenente bi ci xadis boo xam ne buxaari ak muslim solo nañ ko abu daawud ak tirmidi ibnu xajar di ko génnee ba tey ci téeréem bi ne la yazni zaani xiina yazni wa huwa muminun wala yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa muminun wala yashrabu alxamra xiina yashrabuha wa huwa muminun ñett ñii bi ñuy def ñett ñett yi seen ngëm yàlla nekkatul ak ñoom déglu leen ñett ñii waxtu wu nuy def ñett yi seen ngëm yàlla rocceeku na ba set ñett ñii ci waxtu wi nuy def ñett yi ngëm yàlla gi nekkoon ci ñoom rocceeku na fut ti nañ ko ba mu set ñett ñii ñooy ñan ñett yii mooy yan ki ci njëkk yenent bi mu ne njaalookat bi laa yes ni du njaaloo azzaani aji njaaloo ji xiina yes ni waxtu wi muy njaaloo wa huwa muminun fekk mu sol mbubum ngam yàlla futti nañ ko kii njaaloo ni muy futteekoo noonu di njaaloo noonu la ñuy futteewaale mbubum mbubum ngëm yàlla hmm? yow góor gi njaaloo yow jigéen ji njaaloo waxtu wi ngay njaaloo la nga futteeku loo futti nu mu tudd ci yére yi nekkoon ci sa yaram ngir war a njaaloo ba ngay futti loolu nga futti waale sa mbubum ngëm yàlla sànni ay gaawal solaat hmm. mbubb mi waxtu mi futteeku la ngëm yàlla gi futteeku ak kan sàcckat bi sàcckat bi xaw gaa yi sàccoon xaalisu Covid bi waxtu wa sénégalais yi ñu naan leen restez chez ñuy sàcc xaalisu Covid bi dañuy public lu ñëpp dajale nga ne ko tungaañ jamono ya ñuy def signature yaag jamono yee ñuy def double facturation yaag jamono yee ñuy def seen nju njaajeg wuru jeg tappale googu ñu doon def ngir ami million ki milliard seen ngëm yàlla mbub mu futti nañ ko sàcc bi tëb ak kay sàcc ci signature ñoo bokk ñëpp sàcc lañ tudd sàcc bi tëb miir ak kay sàcc di ko jaaree ci signature ñëpp sàcc lañ waxtu wa ñuy sàcc seen mbubum ngëm yàlla futti nañ ko kan moo leen ñetteel naankatu sàngara bi hmm, moom it lu bon la danañ ci ñëw bis danañ ñëw ci aaxiru zaman boo xam ne sàngara lañuy ñuy waxtaanee sàngara gars yi ni ñuy njaaloo la ñuy la naanee moom moom nag bonaayam moom <laughs> naankatu sàngara ne duma doon njaalookat du yomb moom loolu mooy bodaayu sàngara waaw nit mën na njaaloo sax te du naan sàngara waaye damay naan sa duma ma njaaloo yombut hmm. aka bon moom kon ñett ñii waxtu wi nuy def ñett yii doonuñu aji gëm bàyyil njaaloo tuubal dawal luy jege njaaloo xawaw bul nangoo wéet jigéen ci néeg ngeen naan da ngeen di foddu ngeen njaaloo raayante nangam nangam ngeen baal ñu ci wax ji waaye noonu lay amee bul wéet ak moom ne nabi nee na su ngeen di wéet tàmbali yooya seytaane ñëw na participer dañuy fo rek defuñu dara hmm, di ko defi tëju ci néeg ne da di fo defu leen dara subhanallah nabi nee na fa ngeen wéetee yéen ñaar góor ak jigéen seytaane ñëw ñetteel leen buntu njaaloo ubbeeku na tegante loxo riisonte yaram tegante gémmiñ nangam nangam aywa njaaloo ga tàmbali na da ngeen koy yeggale kay waaye tàmbali na tàmbali na yàlla dégg nga wax dane bul jege wala taqrabu azina bul jege njalo yow ngay tegante yaram di kottanteeg akolaatante léegi ci mbedd yi ngay gisee ñu koy def koo xam ne demoonu jàkka ja alxayri doxul seen diggante joxe woo ñeent ak trans uto yi seede ana yow ana man ngeen dajee waxtaan dëppoo acca léegi seen yaram yi mën nay kole wante nangam nangam njaaloo tàmbali na njaaloo tàmbali na ngeen ko yeggale kay wala ngeen bañ ko yeggale waaye njaaloo tàmbali na yàlla nee na bu leen ko jege yeneen bi nee waxtu wi nga koy def doonoo ku gëm kii sàcc waxtu mi sàcc doonul ku gëm hmm? kii naan sàngara waxtu wi naan sàngara doonul ku gëm yàlla ñett ñaangoog ñett ñaangoog ñett ñaangoog ñett ñaangoog ñett ñaangoog wala yaadu billah yàlla ñu si yàlla musal njaaloo ak bon ak a bon ak bon ak a yées njaaloo day merloo yàlla day jur njëppiteem sunu borom subhaanahu wa taala sëñ am na lu ñuy tuddee xutbaaniya xutbaaniya waa tasawuf xam nañu garaat boobu garaatu xutbu ku mos a njaaloo doonte benn yoon la doo ko doonati ci sa dund hmm? tax njaaloo grave li ñuy tuddee bu xutubu bu benn garaat la waa tasawuf xam nañ ko ñu mosul toq nag ci tasawuf ñoo koy weddi xamuñ ko mu ngi mel ne rek ñu ne la ci armée bi am na garaat bu tudd général nga ne noo loolu amul te fekk yow nekkoo ci armée bi ndax xamoo ko waaye ñi ci armée bi xam nañ garaatu général ñi nga xam ne ñoo nekk tamit nitu yàlla yi xam nañ luy garaatu xutbu ku mos njaaloo benn yoon même boo ko tuubee ba yàlla jéggal la ko ngay jaamu yàlla boo doon waliyu yow mënatoo bokk ci raawu xutbu yi mënatoo cee bokk benn yoon rek ko ko mos a njaaloo mhm. benn yoon mos nga njaaloo ci sa dund benn yoon tuub nga ko ba yàlla jéggal la ko yaa ngi jaamu di sellal di naafila di jàng alquran di zikkar di gën a jege suñu borom kay mën na la rangal garaat bu ne waaye xubbaan yi moom bokkatoo ci ndax daa bokk ci condition yi ki koy doon du mosa a njaaloo ci dundam doon ci benn yoon loolu rek war na tax képp kuy góor góorlu ci jaamu yàlla nga moytandiku njaaloo waaw nga moytandiku njaaloo beneen xadis bi Buxaari ak Muslim Abu Daawud Abu Daawud Tirmizi Nasaayi ñoo ko génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yaxillu damu mriin muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullahi illa bi ixda thalaasin asayibu zaani wa nafsu bin nafsi wa taariku li diinihi lmufaariqu lil jamaati jullit ngir ñu tuur deretam du dagan bu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu dul ci ñetti yëf ci lay daganee ñu tuur deretam ban mu ne asayibu zaani jeeg buy njaalo jeeg bi lum ci jublu fii mooy ku sangewu wa nafsu bi nafsi ku rey bakkan ñu war la rey ak lan ku tub bi ku nekkoon lislaam ci lislaam ba noppi xëy génn ci bu ñaati lislaam dañ ko war a rey ñett ñii seen deret lislaam mayee nañu tuur ko ñett ñi bokk na ci kan am boroom kër ba noppi njaaloo am soxna ba noppi njaaloo wala nga mos koo am njaaloo sëy naa ba tas rek léegi maa moom sama bopp am na jigéen ñoo xam ne noonu lañuy dunde dundee da ngay dégg sax ñu ne la waaw nangam nangam damay bañ a tudd lu ko jege nangam nangam yi daal ñoom bu ñu sëyee ba tas bu ñu sëyeegul mën nañoo téye seen bopp waaye bu ñu sëyee ba noppi yàllaa xam yàllaa xam waaye daal am na ci ñu am na jigéen ñu bindoo noo xam ne nii bu ñu xasee sëy ba tas dañ naan am nañu liberté ñoom moom seen bopp li ñaan picca moom boppam garab gu ko neex dal waaw waaye moo tax tamit rëbbkat bu ko neex rek laspeer ko picca moom boppam garab gu ko neex dal ah, waaw picc tamit amul kilifa moo tax rëbb bu nekk mën ko laspeer léegi daal man am naa soxna am naa doom léegi daal firi naa takkaatuma soxna dañ may sonal soxna yi dañoo bari problème waaw léegi nag li nga fas yéene mooy di njaaloo am na ñoo xam ne noonu la ñu mel nee nañ duñ takkati soxna mais léegi boo takkati soxna takkal sa tubéy ba mu dëgër kooko mën a bañ a takk soxna waaye képp koo xam ne boo takkul soxna da ngay njaaloo sa ñàkk takk soxna gi bàkkaar la bàkkaar la yow takk soxna farata la ci yow koo xam ne bu takkul soxna day njaaloo takk soxna farata la ci moom yow mi ne waaw man sëy naa ba noppi daal léegi dama jógee ci sëy bi am problème dama suur góor nangam nangam nangam d'accord na dëggu de takkal sa sër yow it bu mu dëgër benn góor bu mu xamante loo woddoo bu dee neenga doo sëyi waaye sëyi woo di sëyantu xaraam xaraam ku dem ba ne man dootuma sëyeeti duma lekkati ñeent ak su góor ah fa yéene la nag takk sa sër ba bàmmeel dikk su boobaa de loolu mën nga cee bañ a am daanu yàlla de bàyyi nga benn sunna rek soo deful ci sa dund kenn du la ci bindal bàkkaar du ma sa te mën a téye sa bopp duñ la ci bindal bàkkaar bàyyi nga sunna nag waaye bu fekkee dang ne du ma sëyati ba noppi sëyantu di njaaloo sa ñàkk sëyi googu bàkkaar la bàkkaar mhm. amul fu amul fu sariya di ubbilee buntu njaaloo amul amul yow toll nga ci situation yi man ngaa dem njaaloo ji déedéet sariya ubbilu la ko yenn fuqahaa yi ñooy wax ci seen téere yi jigéen joo xam ne nii bakkanam mi ngi nii ci xot ngir xiif bay bëgg a faatu mu dem seeti góor di uti lu mu lekk kii dong nga nekk ci dëkk bi di góor moom dong nga ko nga mën a jox lu mu lekk mu dem mu santage ko ne ko su ma nekkul yow du ma la jox loo lekk ta ndaw si bu nekkul ak moom dana faatu léegi ndax mënatul supporter xiif gi bunt boobu dong bu xat boobu képp la fuqahaa yi di wax ci jigéen jooju mën a njaaloo kooka te duñ ko ca bindal bàkkaar ngir mu mën a lekk lu sauvé bakkanam demal ca Cheikhul Xalil waaw te loolu bunt bu sew la de jigéen joo xam ne danaan may dem njaaloo ji ngir bëgg jënd savo ngir bëgga a jëndi dàll mukk xaraam sariya du la ko may ngir ne da ngaa mukk bakkan bakkan bu taxaw comme lan akay sàngara sii ñu la may nga mara mara mar ba toll foo xam ne nii boo naanul faatu nga gis benn butéelu sàngara doom nga fi nekk ci ndox nga jël ca guux lu faj sa mer ba akay sariya du la teg daan ci guux yooyu nga guux ngir sa bakkan bi ngay sauver ndax sauver bakkan moo nekk priorité ka ba a def lu xaraam mooy ku xiif ki tamit gis medd medd mu taxaw medd su lekkul ci mbedd mi léegi ñàkk bakkanam nga dagg ci loo lekk ngir sauver sa bakkan pare mbedd mi xaraam na ci yow ah, bi nga suuree amatoo droit lekk ci léegi ku bëgg a xiyaasee loolu nag nga ne jigéen ji man nga dem jaay sa bopp ngir di ko dundee doo dëgg amut kenn waxu ko dafa am coow lu ma sa jub ci lu mel noonu am ku ma ma sa dégg mu ci wax naa ne ko ah la nga ca wax bokkul ak la ci téere yi bind de kii bakkanam dong nekk ci xott kese waaye jigéen ju ñàkk amul liggéey dem ñu jox ko carte muy dem di gàncetu di nekk ak góor tey suba mu nekk xaram da pet la xaraam kenn ubbilul buntu jigéen ngir mu def lu mel noonu amul amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa baxaayal arab yaa baxaayal arabi inna min axwafi ma axaafu alaykum azzina wa shahwatul xafiya ey yéen defkatulu bon yi njaalookat yi bokk na te nekk ci biir arab yi bokk na ci li ma a ci yi ma tiitloo ci seen biir mooy njaaloo ak saxwatul xafiya mooy yëg sa bopp yëg sa bopp maanaam ngand ngandulu jëf-jëf ji ba noppi di tiitaru mhm. yaa fi man yaa fi raw yaa fi gën yaa nàngam ngay bég ci loolu loolu la ñuy tuddee saxwatul xafiya nee na loolu lu ma ragal la ci sama xel waaye tamit njaaloo lu ma tiit loola yéen arab yi mu tasaaroo ci seen biir léegi da ngay dem ca réewu arab ya fekk jigéen ña raa di jaay seen bopp yenn ci réew ci réewu arab tàmbali nañ ko nabi nee na loolu lu ma tiitloo woon la lu ma tiitloo la ci sama waxeet tabaraani ba tey ak ahmed nettali xadis bu yonent bi waxee tuftaxu abwaabu samaayi nisfa nisfa leyli fa yunaadi munaadin hal min daa'in fa yustajaabu lahu hal min saa'ilin fa yutaa hal min makrubin fa yufarraju anhu falaa yabqaa muslimun yad'u dacwatan ila stajaaba allahu azza wa jalla lahu illa zaaniyata tasaa bi farjia bi farjiha aw ashaaran ku doon njaaloo boo dégloo xadis bi war nga koo baax <laughs> ñun fuñ toll dañuy ñaan yàlla buñ jullee ñi ngi ñaan bu ñëbërëb bi baax naa ñaan ñi ngi ñaan soo gisee kuy dem di aji màkk nga ne ko ñaanal ma dangaa bëgg a dem umra ji di ñaan dangaa bëgg a dem bërëb yu sell yi di ñaan dangaa bëgg dem gis nit yàlla yi ñu lay ñaanal ndekete njaalookat bi buy ñaan waxtu wi gën a am solo ci ñu koy ñaan diggu guddi yàlla danaan ko bankal say loxo duma la jox yow ko ci sallallahu alayhi nee na sunu borom day ubbi buntu asamaan yi guddi digg guddi sant wootekat buy wooce naa ndax am na kenn kuy ñaan yàlla may ko am na kenn kuy laaj yàlla jox ko ndax am na kenn ku am njàqare yàlla wuññil ko njàqareem amul jullit buy des di ñaan lu dul ne yàlla nangul na ko li muy ñaan lu dul njaalookat bi wala kuy laaj fukkeel achar ci ceddo gala gënoon bari laata lislaam ñëw alalu jàmbur nga jël fukkeelu alal ja lislaam fukkeel bi la wax ne nañ ko xaaj ñeent loolu it buñ ko duggee ci détail danañu jëlal ay minit waaye achar mooy loolu kuy jël fukkeel bi te fukkeel bi la lislaam wax nañ ko xaaj ñeent ñeenteelu fukkeel bi njaalookat bi buy ñaan yàlla digg guddi yàlla du ko nangu te mbokk yi ñaan yàlla digg guddee ka am solo bàyyi ba ñëpp set ba ñëpp tëdd suuf si ne selaw dara yëngatuwul nga ne bëxën ñit ci sa lal ah, lal ba léeg-léeg mu nugg nooyi lal ba léeg-léeg mu nugg nooy nga bàyyi lal bu nooy ba te nugg jóg dem utali ndox ma jàpp taxaw julli ràkk toog tàllal yàlla loxo di ñaan heure boobu noonu gis nga guddi gi ni tali bi di libéré libéré tali bi boo doon woote appel yi ni muy leeree connexion yi ni muy gaawee même sos la ñaan ak jaamu yàlla di mel ci waxtu woowu wala sax nu ko raw ci gaaw a nangu waaye kuy njaalo buy tàllal si suñu na ne ko tëriwaatal yow bokkoo ci du ma la may ah lii bànneexu nangami minute jaral na la ko ndaw si daa rafet waaw waa ji bëgguma koo ñàkk am na loo xam ne li jigéen ñoo xam ne ndeysaan dañoo toll ci sëy daje góor gu saay-saay mu gëm loo leen da leen di takk ba ndaw sa gëm ko ñu dem wax ak ndeyu ndaw sa wax ak baayam wax ak mbokkam présenté wu dem maye fii ñu ne waaw diw de am na ku baax nangam nangam mu dem ba jàpp datu mariage ñu yëgle ko ñëpp yëg diw mooy takk diw ndekete leen na dong la bëgg mooy nu mu amee ndaw si waaye takk ko ñoru ko am na góor ñu ko def caay cay lool ne ndaw si daal léegi loo may tereti sa bopp xanaa du man maa nar a nekk sa borom kër yëgle nañ ko fépp bi sàngam lañ jàpp soo nooyee bopp ba yombalal sa bopp waa jooju perte nga waaw ku muñ nangami weer kay bu dee nangami fan a ci des na ko muñ góor gu la respecté du la laaj sa bopp jigéen ju nekk góor bu la laajee sa bopp tàcc ko ñetti tàccu wax naa ko keroog ca 31 ba bu may waxtaanal <laughs> ndeysaan ndaw ñi conférence ñun 31 ndeysaan <laughs> dañuy fanaanee <laughs> waxtaan ak xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi ndeysaan ca Pikine man leen trois tàccu jigéen xajul ci bopp góor taj taj taj trois tàccu góor jigéen xajul ci bopp góor waaw ma bëggee wan ma ko ah, léegi après ah no xam nga rek yow nan tamit ah, da nga war a bégal nangam nangam nangam nangam waa après buy wax jëy yegg rek tàcc ko ñett tàcc ma ne ko boo ko tàccoo ñetti tàccu nag mu insisté am na benn dëkk bu nekk gannaaw altine teg ko ko waaw dëkk boobu nekk gannaaw altine teg ko ko jigéen day am dignité jigéen day am dignité keroog bind naa sama page Facebook gis ñuy commentaire te comprendre dama bind rek ne ah téye seen doom yu jigéen yi tey la 31 décembre téye leen seen doom yu jigéen yi am ñu naan mais doom yi góor yi nag te comprendre ñu xamu leen ne mbedd mi bu baree góor jigéen ña ca mbedd maa tax yëgu ne soirée bu bari góor fekk jigéen ñaa fa ne looloo tax ñi organiser soirée yi léeg-léeg nga gis ñu def entrée cinq mille hommes femme libre lan moo tax ñu naan femme libre dañoo xam ne bu femme libre amee góor ñi danañ fa bari entrée bi deux mille cinq cent la woon mais ñoo ko def cinq mille ngir waa cinq mille ñoo fayal kii ñëw libre bi ma ci tàmbalee wax gis ñuy commentaire comprendre ci laa bindal ci suuf ne leen jaaykat su gisul jëndkat làlli kuy jënd te gisul kuy jaay ñibi rëbbukat buy rëbb te gisul rab wu mu jàpp ñibi këram jigéen ñi boo ñu leen yaree yiir leen ñu muur seeni cër toog ci kër yi góor gan jigéen lay dajal di foog moom ñëpp nag lañu war a yar doom yu góor yi dañ leen war a yar doom yu jigéen ñi dañ leen war a yar waaye jigéen ñi buñ leen yaree ñu téye seen bopp xam seen bopp góor du leen ñeme ba di leen di sàkku waaye 31 décembre bi ndeysaan da ngay génn minuit ci guddi daje xale yu am ay 13 ans 15 ans sol zipp sa yaram bi daw zippo naka la bàyyi mën a bàyyee doomam ju jigéen poojam di feeñ mu koy gis génn buntu kër gi sa pooju doom suñ fàllu siise yàlla na ko yàlla yërëm moor <laughs> moom laa déggoon mu koy nettali mu ne góor ga daa toog ndeysaan doom ja xaw ma fu mu lijjantee zipp toog rek sol ko romb baay ji mu ne ko yow loo sol ni mu ne ko ah, papa mu ne ko laay lay la laa munumaa gis sa pooju ndey di gis sa pooj ca biir futti jël wax ji xam nga diis na waaye bàyyi ju doon la munumaa gis sa pooju ndey di gis sa pooj hmm. doom ju toll ne ndeyam sol zipp di romb baayam bàyyam naan ko maa bel xaw ma maa nàngam <laughs> baax na ba tey sëñ Fallou ko daan wax daa mu a jàngale wane ko tere ko yombut wane ko tere ko yombut waa jigéen ji sol zipp poojam di feej moroom bi góor lu mu ci jublu léegi jigéen ñooñu ñu bëgg bàyyi ñuy sol col gu yiwa di googu yaruñ leen ci nëbbu seen awra yooyu ndax du faciliter njaaloo aha kay waaw xale bu jigéen bu toll ci quatorze ans quinze ans seize ans dix-sept ans dem seeti saram faram bu toll ci vingt ans sol zip ñu dugg ci néeg ne dañuy fo duñ def dara dañuy fo rek duñ def dara hmm. mbokk yi Yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ci xadiisu tabaraani inna zunaata tastailu wujuhuhum naaran inna zunaata njaalookat yi tastailu day tàkk wujuhuhum seen kanam ya naaran safara bu ñuy dekk ci bàmmeel ñi doon seen kanam yi ay jumi safara moo ci tàkk seen kanam yi day tàkk seen kanam yi dañuy tàkk ñi doon njaaloo buñ dekkee ci bàmmeel fekk tuubuñ bàkkaaru njaalo tashta'ilu dafa tàkk wujuhuhum ci seen kanam ya naaran safara Bayhaqi ne yenent bi nee na az-zinaa yurisul faqra njaaloo day waral ñàkk njaalo day waral ñàkk hmm. Cheikh Alhaaj Malik wax na ko ci xantaratul murid wéy na wéy na benn wéy woy bi dama xamatul nu woy bi toftaloo waaye nii mooy maanaam yi kansul fina xaslul ina tarku zina minal umuri mujibaati lil xina nu mel noonu la waxee wax ji dana ñett yi day taxa am wërsëg <laughs> ñett yan suñu xaaj Malik ne bàyyi njaaloo di bale sa ëtt di raxas say ndab mhm. te loolu def ko wëyaat daa woyaat taalimul mutaalim la jëlaat woy ko borom taalim wax jooju mi ngi ko jëlee ca ña ko jiitu woon moom it kon bañ di njaaloo bokk na ci liy ubbi buntu wërsëg njaaloo bokk na ci li koy tëj soo bañee sa business ne mes baal njaaloo kuy njaaloo te am sa business léegi sa business bi ne mes mu yéex mu gaaw nag diw dafa daanu léegi moom de amoon na hé aka riisoon aka nangamoon aka rafetoon aka nangamoon gis nga toon toon yooyu njaalo bokk na ci lii tax toon toon yooyu bari aka rafetoon aka riisoon aka siiwoon aka nangamoon njaaloo dana waral nga nekk ancien yooyu ancien ku am ancien ku rafet kay njaaloo da def yeneen bi ne njaaloo day xañe wërsëg day xañe wërsëg hmm. day xañe wërsëg day xañe wërsëg hmm. am na benn xadis boo xam ne xadis bu gudd la yeneen bi mooy bi mu tëddee noonu nee na ñaari malaaka dikkal ko ne ko dañ koy yóbbu wan ko nee na muy dem di gis ay nit di gis ay nit gis ay nit ba yegg ci benn bërëb boo xam ne dañ ne ko xoolal mu xool gis bërëb boo xam ne benn kàmb lañ gas ci suuf lu mel ne souterrain souterrain lañu gas mais biir gi dafa yaatu mais lu mel ne benn pax mu ndaw benn turu bu ndaw lañu ubbi nii ma nga dégg ci biir coow lu baree baree bari ay yuuxu yu baree baree bari ci ay góor ak jigéen mu laaj ñaari malaaka yooyu noonu lee di wax ak moom ci gént gi ne ko ñii ñumu te yenent bi lu mu gént dëgg la sallallahu alayhi wa sallam wax yu la yàllaa koy wax di ko wan lan lañ ko tontu dañ ne ko wa ama rijaalu wa nisaawu urraatun alladina hum fi mithli binaai tanuuri fa innahum zunaatu wa zawaani ñu ne ko góor ak jigéen ñooñu nga gis ñu def yaramu neen nekk ci lu mel ni fuur fuur suuf ga yaatu lool kaw ga xat lool ñu ne ko ñooñu ñooy njaalookat yi subhaanallah ñi nekk di njaaloo gis nga ni ñu futtee ko góor ak jigéen di njaaloo noonu lañ leen di futtee dugal leen ci biir fuuru safara yooyu ñu nekk fa yuuxu rek waaye duñ mën a génn am na beneen waaye dana bu demee ba ñu jafandu bay bëgg a génn malaaka yi dañ leen di kajjaat mi duggaat ci biir pax ma yàlla na nu ump yàlla na nu ump ah bànneexu ko quelques jar na ko mukk jaru ko hmm, suñu waxtu waa ngi jeex waaye bànnee ko quelques jaru ko cinq minutes ak six minutes ak na jaru ko ndeysaan góor gi alaaji taala siise janama moo daan jàngale cinq mille neuf cent dix ne moytu leen ko ci laay daanelee xam naa après nag mu bàyyi gars ñoom ñooy wax ndax dañuy wëyal walla ñu ut beneen thème wala ñu indi beneen hmm, seeni commentaire tey la deuxième partie ci bonaayu njaaloo bonaayu njaaloo léegi nag ndax dañuy indi ñetteel même déet ci yéen la des li borom téere bi bind daal des na lu baree baree bari ci njaaloog bàkkaar xaddis yi ci rot ak yi am na ci xaddis yooyu balaa maa ñëw ci alaaji taala mi may jeexalee am na ci xaddis boo xam ne dafa wax ni ñu dugg biir safara li leen di gën a déranger xet gu bon gi leen di gën a déranger mooy xetu kanamu ñi doon njaaloo mhm. ñi doon njaaloo seen sexe yi xet gu bon ga cay génnee moo gën a métti waa safara mbugal gi leen yàllay mbugal ci tàngooru safara xet gu bon googu moo gën a métti gaa yi ku xam lii <laughs> da nga dawlee wallaahi dara jaru ko toog nanga mi at yoo amul borom kër jaru ko toog mi at yoo amul soxna jaru ko sa moroom yëpp a ngi njaaloo jaru ko ndax li grave ci njaaloo mooy léeg ñi ngay àndal ñoo la ciy influence sa waxandoo yi sa xarit yi soo jëlee sa téléphone woo sa xarit mu naan la ah biig moom seeti woon naa sama far wi wala ñëwoon na fi ah waaw après nag mu naan la ah noo xam nga rek yëfu xale rek lañ def nangam nangam nangam yow xam nga rek nangam nangam waaw ngay nekk di net mu lay nettali yooyu di nettali ba yow nga xëy ndeysaan dugg ci cirque boobu te poson la de boo ko tàmba boo pour nga ba ko du yomb de te da yàq de da yàq alaj taala siise moo ne woon nañ moytu cinq mille neuf cent dix mooy daa dem ca école ba fekk professeur ba ak élèves yi mu gis ay góor ak jigéen mu ne ko góor gi looy dénk ndongo yi ne na mu ne jox ma kere ñu jox ko mu bind ci tablo bi na ngeen ko moytu cinq mille neuf cent dix mooy cinq minutes des plaisirs mooy cinq mille yi mooy cinq bi neuf bi mooy neuf mois des grossesses dix a ci des un bi mooy un enfant sans père zéro bi mooy zéro avenir mooy cinq mille neuf cent dix cinq minutes de plaisir neuf mois de grossesse un enfant sans père doom ji amul baay zéro avenir mu ne na ngeen ko moytu na ngeen ko moytu mbokk yi lii lañ leen indiloon ci seen émission aaxiru zaman yal na yàlla musal nu ci njaaloog lépp lu koy jege boole ñu ca nga xam ne dañuy fegu di dawandiku lépp lu leen di puus di leen jëmee ci bàkkaar bu bon bu xaraam bu ñaaw bu yées bi di jur merum yàlla mbugalum yàlla njéppiteem yàlla lépp lu nuy yóbbu ci bàkkaar bi yàlla nanu ci yàlla musal jërë ngeen jëf ci seetaan bi beneen jataay ci aaxiru zaman wasalaam seen émission axiru zaman ki leen ko may Café Touba Madiana yàllahu bil Mustafa. café Touba Madiyana. café Touba Madiyana di kafe gu neex ñu liggéey ko ci liggéey bu sell ay doomu réew mi nag ñoo ko amal kafe gi nag ngeen mën ko am ba bitim réew ñu mën leen ko livrer ak mondial relais kafe Touba Madiyana machine expresso yu ñuy xellee kafe sunu capsule yi mën naa dem ci machine yi da ngay xelle rek naan sa kafe kon nag woote leen ci numéro bi 77 567 67 43. 77 567 67 43 Café Touba Madiana ñoom nag dañuy jàppale daara yi ñu fas yéene nag lépp lu ñu am ci ay commande daañ ci génne dugal ko ci daara ji di daara alxaaji Abdul Aziz si Dabbaax ñuy liggéey daara ji mu nekk fii ci Tiwaawoon Pël kon nag yéen mbokk julliti fexe leen ngeen jënd Café Touba Madiana di kafe gu neex ñu liggéey ko ci liggéey bu sel ay doomu réew mi nag ñoom ñoo ko amal bu dee yéen ñi nekk Europe mën nañ leen ko livrer ak mondial relais ak foo leen mën a nekk ci Europe déwén ngeen ko man Café Touba Madiyana na ñëpp jàpp ci liggéey bi tànk bu gudd ak barke oolee kalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem